baa ngi nii dama dégg muy jàkkaarloo te moom laa ciy xaar. dëgg la loolu léegi boo nee premier adjoint. seen waxtaanee ba jubóo. dina am lu ngeen mën a démarrer activité boobu. tey jigéen ñi. ci seen mobilisation di sant ndaw ñi. di félicité ñëpp. di ñaanal ñëpp jàmm. te monsieur le maire. ñu ngi mën a mu gone. yow. boo paree mu gone de. la yi di leen ñaanal barage yi di leen sant bu baax di leen gërëm di sant. maa ngi sant monsieur le maire. ndax wolof nga ne lépp bu ma cee amoon na ko gërëmee cooy. loolay tëgg loolay tëgg. waaw loolay tëgg. monsieur le maire. man dina xamal ne. ku dul yàlla ak yonent bi moo la ñu rey. dëgg la. loolu ca kaw laa koy wax. maa la wax loolu. képp ku sax bokk tey nit. Ah. nekk ci Sénégal. Ah. bëgg ñoo rey. moo doon ñoo rey. dëgg la loolu yàlla jox ñu ak sant. sant yàlla. kon ku ñu bëgg a rey yaay dee waaye. dëgg la. bëggoon naa ñu gën leen a jàppale. dëgg la. bu baax a baax a baax. dëgg la day am. beneen bi ci des. maa ngi sant waa état civil maa ngi sant waa mairie mais rawatina waa état civil. Oh, bu dee ci wàllu politique. maa ngi sant waa Bokk Gis Gis. di sant diggante Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly maa ngi sant maa ngi sant tamit sur waa mouvement bi bu baax a baax a baax leen xamal ne fii ñoo ko moom fii ñoo ko moom fii ñoo ko moom fii ñoo ko moom fii ñoo ko moom fii ñoo ko moom Bachir di sant Serigne Bamba Thion di sant As Diagne ak ñi mu ànd ak waaye di sant monsieur le maire Alioune Diouf su ma nee Alioune Diouf nag mooy Alioune Diouf bu ñëw Alioune Diouf Bata École Alioune Diouf mi yoroon ASM Mbacké monsieur le maire bi responsable de qualité la ma fekkee sama kër jox ma te moo ma woo waaye dinaa ñëw si kër dinaa ñëw ci biir instant te def na mu yàgg yëpp onze parole de qualité la ma jox. demal école de football yi onze lañ jox leen kon boobal dinaa ko sax waaye tamit ngeen xam ne monsieur le maire moo fi nekk. dëgg la Abdou Mbacké Ndao moo fi nekk. waaw waaw. am na Bilal. waaw. kër Sëñ Tuubaa gi rek dafa doy Bilal. dëgg la dëgg la. comme ni ko honorable waxee ñeenti euh, poste de santé. mooy mooy. nga def ko ci benn mandat. mooy def si ab tali boo xam ne nii. un kilomètre deux cent la. mooy def fi éducation lan moom. dëgg la du ma ko wax. waa éducation ko waxal seen bopp. yokk subvention yi. fi ma sa jaar monsieur le maire la gën ci. yokk yokk. ki sancé 300000 la woon yëpp 1 million. yóbbu boori yóbbu lépp kon daal su ma taxoon éclairage moom kenn du ko wax amul fenn foo dox ci Mbàkke te mënoo faa for ab puso. marché Mbàkke bi rek lay mujjee marché Serigne Fall. placement bi. waa TER barki démb lañ fi ñëw. waa TER barki démb lañ fi ñëw. santal ko seen bopp. commune de Mbacké moo jël paix ci Sénégal. ñooñu ñooñu monsieur le maire. su ma taxawee fii. di lim fi def. ak lim ci jàpp. fi la ñuy faral. am na waa dëkk bi. ci ngelaw lu tàng li. ci tàngoor wi. ci poussière bi. ci lépp.

waaye ma ragaluñ ko. déedéet. suñ cër laa wax ragaluñ ko. waaye ndam lu leer. monsieur le maire monsieur le maire ñu yëkkati loxoom ko kaw. incha allah day am sant.